waaw daje bi li ko waraloon tey mooy dañ fee daje woon tey ak euh, mbooleem organisation sareet yi nga xam ne ñoo nekk ci Mbàkke ak Touba yëpp nga xam ne boo ko seetee war nañoo toll ci ay juróom-ñaar fukki garas ak lu topp boo boolee Mbàkke ak Touba. mu mel ne itam ci suñu feuille de présidence jot nañoo resevoir ñeent fukki garas ak juróom mu mel ne kon li ci des bëriwul li ñu fi dajale woon tey itam mooy. jafe-jafe ak fitna yi nga xam ne at yi ñu mujj ñu ngi koy nemmeeku ci li nga xam ne mooy secteur transport hippomobile muy secteur u saret te ñun ñi nga xam ne dañuy yëngatu ki transport di yëngatu ci wàllu sécurité routière gis na ne transport Mbàkke ak Touba boo ko defee ñeenti xaaj ñetti xaaj yëpp saret moo leen di yóbbu mu nekk transport bu am solo boo xam ne ba ci xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér daf koy jëfandikoo bari na loo xam ne bu ko soxlawoo saret yi ñoo ko koy defal ñooy dem fi gën a sore ci Touba ñooy jaar ci yoon yi gën a métti ci Touba ndax Touba bëriwul ay tëli ñu gis na nag transport la bu am solo waaye dafa mel ni dañ ko ñàkkal fayda ci lu bëri loolu nag moo tax ñu dem ba di ci nemmeeku lu baree baree bari ay nit ñuy jóge feneen di ñëw ci secteur u sareet di ci def ay ñaawteef ñaawteef yooyu ñu wëlbatiku di ko moomalewaat ñi nga xam ne ñooy sareetier yi ñu ne nag nañu tase euh, waxtaan ba lépp loo xam ne dafa dugg ci sareet ci at yi mujj yi te bokkul ci sareet ñu seppi ko ci mbirum sareet sànni ko ci àll ba kenn dootu ko gis ci sareet beneen bi itam mooy jafe-jafe yi nga xam ne dafay am ci diggante dawal euh, dawalkatu sareet yi ak commune di am ci diggante dawalkatu sareet yi ak li nga xam ne mooy takk der loolu itam waxtaan nañ ci waxtaan yu yaatu ba bu ñu jugee fii danañu tax euh, taxawal benn cadre de concertation boo xam ne ñëpp ñi nga xam ne sareet intéressé na leen nañ leen ci boole ci Mbàkke ak Touba ngir ñuy daje. saa su ne di waxtaane li nga xam ne mooy jafe-jafe yi am ci saret mais bu ñu jugee fi daal bëgg nañ fi la ak weer képp koo xam ne yaa ngi ci secteur bi di yëngatu ci saret di nga gis ne li ñu fi taxoon na tase am na saafara yu bëree bëri yoo xam ne am na ci ndax autorités yi yëng nañ ko muy sous préfet muy euh, euh, monsieur le maire bas Cheikh Bass monsieur Ibrahima ñoom ñëpp yëng nañ ko te ñi ngi xaar ñu yóbbul leen liñ fi tënkee ñu ànd ak ñoom ñu jàppale ñu dooleel ñu ba lépp lu ñu naqari ci sareet ñu jëlee ko ci sareet ba mu jeex ci tàkk. Euh, sareet yi moom ak loo mën a wax organisation am na ndax gaaras boo dem dajale nañ ña fa nekk ñu nasu xëy na nag euh, am na lu ci des lu baree baree bari loolu ci des nag ba tax ay ñaw ñaawteef di ci am moo tax ñu bëgg a dajawaat euh, defaraat ko ba li nga xam ne nii mooy dooy doyadal googu mën fee jógee ndax doyadal gi ni koy def sa teguñu ko fen yow yow yow yow takk der bi yow ASP bi yow xëy na autorité bi yaw yow député bi yow keneen ak keneen ak keneen borom saret bi ngay doyee dal bokk na ci ñi lay fay. parce que borom saret bi mi ngi fay taxe municipale te taxe municipale yooyu bokk na ci li ñu doon waxtaanee pour gën ci encourager borom saret ñu du ko fay kon bu fekkee ne yow da nga nekk liggéeykatu état. état di la fay nanga jàpp ne li la état di fay borom saret bi saa su ne mu ngi comp ci aw ñaqam di dugal ci état état di la ko fay kon waroo koo doy dal waroo ñàkkal fayda ku ne xam na ne eh, yëg ngeen ne yëngu-yëngu yi bari na fan yi ci wàllu transport ci wàllu saret ba tax na fépp ci réew mi ak ci bitim réew yéen a ngi dégg ñi ngi wax ne sareet yi nga xam ne dañu nekk fii ci Touba dañu am ay jafe-jafe yoo xam ne dañu ci am ba nga xamante ni sax dégg ngeen ci fan yee ku ñu lor ah euh, mu xam ne mbir moo xamante ni mbir mu ñu naqari la Euh, ñu di ko jaale nag le xalifa général de Mouride Cheikh Mountakhal Bassirou ndax yàlla dogal na lépp ci loxoom la nekk kon lu mel nii bu amee ñun ñi nga xam ne ñooy ñooñu sareet war nañu daje baalu ko àq ba pare jéggalu ko jéggalu itam mbooleem askan wi nga xam ne ñu ngi doon dégg loolu di wax ne ay nit lañ yoo xamante ni euh, tënkuwuñ lu may ci ndigalul Serigne Touba tubaa dañ fi nekk di daw dépense ak addiya dawuñu leneen kon su ñu fi nekkee dem ba suñ ay ndaw euh, jaxasoo ci seen biir ba béjoo am Euh, bëggewuñ ko woon noonu ndax képp ku xëyee sa kër ku ne da nga ñaan yàlla dem ci jàmm dellu si ci jàmm te yaakaar naa ne nag euh, ci wàllu transport ci Sénégal gépp sax laay wax ne mënatuñu cee génne. Mhm. ndax transport boo xamante ni dem na ba tey mi ngi employé lu toll ci vingt mille personnes. loolu wax dëgg yàlla loolu état la waroon. tey su demee ba nga xamante ni nag loolu état récupéré wu ko. ñu dem ba euh, boole suñuy dërëm ak suñuy fukk suñuy waajur jàppale ñu bañ mën a am suñuy fas ak suñuy saret am suñu ay organisation yoo xamante ni amee nañ ko ci dëkk bu sell bi Touba di ci liggéey. ah wax dëgg yàlla loolu jàpp naa ne état waroon na ci teg loxo comme tegu ci woon loxo nag jot na tey ci mu teg loxo ci loolu ndax euh, dégg ngeen ne waxoon na fi ne lu mu gàtt gàtt at mu jot dana créer lu toll 15000 employés fii ci région de Diourbel te Touba gis ngeen ne euh, li ëpp doole ci wàllu employé fii la gën a ñàkke ndax transport rek moo fi am ak commerce. te itam euh, comme transport boobu li ci ëpp doole mooy saret amuñu lu may saret te itam nekkuñ nekkuñ ci leneen lu dul saret kon suñu demee ba lu mel noonu di ci am war nañu daje ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu transport bi ñu fexe ba loolu bañate fee am waaye fexe ba organisation bi nga xam ne amoon nan ko euh, nga xam ne peut-être dañu jàppoon ne fésut ñu gën ko fésal fésal gi nag mooy lii am tey euh, dama jàpp ne sax li mu tolloo ak période Covid moo tax nekkoon gis dangeen gis mbooloo mu bare baree baree bari bi mooy euh, gën a ñaaxaat autorités yi ndax dafa am Touba dafa am lenn ci loo xamante ni autorités yi ñoom ñoo ko yore ku mel ni préfet sous-préfet maire Euh, ndax ñoom ñoo yilif police ak gendarmerie dama jàpp ne am na arrêté yoo xamante ni su jógee balay dem ci police dem ci gendarmerie ñu ko exécuté ci ñoo ñu lay jiitu kon ñoom dafa am waruwaay woo xam ne daf leen a war ci ñun te waru waruwaay woowu leen war ñoom defuñu ko ndax boo xoolee li ñu gën a néewal doole mooy police ndax euh, gis ngeen ne jànkonte yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi koy jànkonte ci dëkk bi ñu nag police lan koy jànkonteel euh, dañuy ñaan euh, ki ñuy ñaan mooy Cheikh Bass Abdou Khader moom mi nga xam ne yàlla dogal na moom mooy porte parole yoonu murit nekk loxo sëñ taxaa mu ne mooy ay loxo mooy ay tànkam di ko wax ne ko njabootuk saret yëpp nañu xam ne ay taalibey sëriñ Touba lañ te li ñu bëgg ci dëkk bi mooy fexe ba euh, li nga xamante ni moo gën ci tuubaa nekk ci saret loolu nag organisation bi amoon na waaye comme ni nga ko waxee léegi dañu fas yéene cadre de concertation bi nga xamante ni Pape Seck wax na ko tey mooy fexe ba euh, def tournée ci garage yi 65 garage yëpp danañ fa dem euh, gën a yokk information bi waaye gën leen a taxawuwaat ndax taxawaay bi xawoon naa des muy ci côté autorité yi mooy ci côté ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite bu ko defee autorité yi itam xam li ñu war suñu diggante ak ñoom waaye ñoom itam ñu xam li ñu li leen war ci ñun ndax ñun euh, Pape wax na ko léegi ñu ngi participer ci développement bi bu baax a baax a baax a baax ndax 20 euh, 000 charretiers yi charrette bu ci nekk da nga fay say droit chaque fin de mois nit ki nag soo fayee sa droit nag am nga sañ-sañu laaj sa devoir devoir boobu nag moom moo des beneen bi di maire maire yàlla dafa dogal mu jiite sëriñ bi teg ko ci suñu kanam ah muy nit koo xamante ni lii lépp moom la waroon tey bari na lu ñuy wax ci dëkk bi tey maire su ci dugaloon loxo mën naa baax ndax yàlla may na ko dootal may na ko doole te itam boo xoolee liy dund ci wàllu système de ressources bi génn ci mairie yi moom lim ci am kenn amu ko ci ndax mairie boo xam ne bu ñu ko watee danañ wax 5 milliards ba 5 milliards yu teg te li ëpp doole moom mu waxal ko boppam ne budget bi li ëpp doole ci ci commune tuuba sare yi ñoo ko ciy dugal kooku nag ñooñu li ñuy dugal war nga leen koo delloowaat xale yi dafa am euh, arrêté interministériel boo xamante ni mi ngi ci taabalu maire di tege nekk ci taabalu préfet ñu wax ne euh, ku dul moyen de 18 ans waroo dawal saret dañu wax ne civil mënul yar morom ji ñun bu ñu amee sens am ay organisation yoo xamante ni créé nañ ay fas fédération créé ay association am ay comité yoo xamante ni toujours mairie ndax am nañ ay conseillers ci commune bi bu arrêté bu mel noonu ñëwee mairie moom moo war a woote def ab lël bu ko defee ñu xool ndaw ñi nga xam ne ñoo indi jéey yi tey ñu ñu xool identifier leen wutal leen ay carte de conseil nga xamante ni ku amul 18 ans dootoo am sañ-sañu dawal sareet bu boobaa boo yoree sareet nag boo daje ak police ak gendarmerie danañ la mën a gaare xam ne yow mii kat amoo âge war a dawal sareet bu boobaa waaye nag li war a waral loolu mooy mairie bi nga xamante ni yàlla dogal na moom moo war a taxaw moom moo taxaw taxawaay bu waral arrêté interministériel bi dem mais loolu lu yomba saafara la xam nga plaque immatriculation dama jàpp ne mairie bi def ci dugg waaye xam-xam ji mu ci war dugge duggee sax duggeewu ko ci ndax plaque immatriculation dafay ànd ak carte de cocher dafay ànd ak carnet de livret de sanitaire dafay ànd ak signalisation orientale nga xam ne sareet hmm. bi fu mu nekk ñu xam kii mooy kan dama jàpp ne bala ñu waroon ñu defar ay plaque dañu waroon ñu woo bu ko defee nga xamante ni soo amee plaque bi ci jour bi danga am carte dentité bu ko defee ñu defal la euh, carte de cochet boo xamante ni moom ak plaque bi ñooy ànd ndax tey plaque yi nga xam ne séddal nañ ko tey maa ngi xool plaque boo xam ne mi ngi dem ci 7775 mm. kon plaque yi mi ngi avancé mais plaque boobu tey bu réeroon logiciel bi nga xamante ni moom lañ def ci commune bi soo demoon duñ la mën a génneel plaque bi kon kooku am na fayit beneen bi ci topp mooy tey boo daje woon ak police di ko présenté plaque bi duf ko reconnaître ndax plaque dafa war a am lan lu mu àndal lan lay àndal mooy carte de conseil boo xam ne dafay nekk ci plaque bi nga xam ne dafay mel ni permis de conduire nga xam ne bu ëllëgee ñu la jàppee danañ mën a identifier euh, carte de conseil bi mën a identifier tableau bi xool ndax yow kat am nga ay signalisation bu boobaa nag ñu doog a doog a xool saret bi ci yan anam la nekk mais mairie dafa jóg rek man dama jàpp ne nag mairie ndax man dama leen tooñ dañu jàpp ne dañu bëgg a identifier fier borom saret yi identification boo xam dañu bëgg a xam lim bi nga xam ne moo ne ci saret yi pour ñu mën a jot seen xaalis mais loolu nag dama jàpp ne échec échec am na ci man nag maa ko wax li tax maa wax mooy échec bi ci am mooy euh, plaque yi dafa ñoragut tey itam euh, niñ koy defee baaxut ndax euh, tey ñi ngi ñu ko doon joxe mille francs may ñu 2 mois léegi bi deux mois yi jàllee def nañ arrêté boo xamante ni tey ku ko am danga koy da nga koy 2500 nga koy jotee te man jàpp naa ne plaque yi ku koy am danga war a ñëw ci fédération bi nga bokk wala. association bi nga bokk ñu identifié la mhm. ba xam ne kii kat ku war am plaque la mhm. ndax ku yorob saret ndax am nañu ay handicapé yoo xamante ni ñi ngi ci te euh, code dafa aaye ñu dawal saret te ñi ngi dawal saret mhm. am na ay xale yu daw yoo wax moyen ni sax dañuy fekk saretu jàmbur jël ko dem yooru ci ñaari yooru ñett moomuñu saret yooyu ñooñu boo leen jàpp da nga naan ah, kii kat am na plaque rek moo moom saret bi dem dañu waroon a tënk ci suñu association yi tënk ci suñu fédération yi a bi ba pare bu identification am ñu door ko dugal ci sel bi boo liggéey soo demoon ba corniche su Daara Jolof nga am fa problème su ñu toogee fii ci garage Dakar ñu mën a woote ci mairie bu Touba ñu mën a xam ne kat diw mii kat euh, garage sàngam la nekk diwa ko jiite diwa ko jiite ci fédération sàngam la sukkandiku mais togg bi daal wax dëgg yàlla ñoragul pour man